aywa lu jëm ci euh, miroir régional tey centre de transfert des déchets ménagers muy euh, mbalit ñu xam ne day jógee ci euh, biir kër yi ci gox bu ñu naan montagne ca Louga ñu ne nag foofu centre ba fa nekk la muy jot ci plastique dina toll ci ay tonnes ci ay bës bu ne ba bës lañ koy jëlee nag entreprise bi di handicap global business moom moo koy indi ndax ñoom lañuy def rek mooy lu jëm ci transformation yooyu mbalit mbalit ñu gën leen xam ci déchets plastiques euh, duñ ci sori centre de transfert des déchets ménagers bu quartier montagne bu Louga fii nag association handicap forme édic lëkkale ay way laago ñoom nag liñ fi taxawal mooy ab projet bu nga xamee ni lu ko tax a jóg moo di valoriser lii di déchets plastiques yi jaare la ko ci wàllum transformation déjà projet bi euh, effectivement ñaar mbir moo ko tax a benn bi mooy euh, environnement xool dèjà mbalit yi nga xamante ni ci biir dëkk bi surtout surtout plastique bi nga xamante def bari na trop jëm ci jur gi jëm ci wàllu nawet bi jëm ci wàllu mbay mi dèjà loolu gis nga li ñu fi gis noonu dèjà dinañu permettre à ce que ñu wàññi foofu. fii nag bés bu nekk ay tonnes yu bëri ci déchet plastique dina fi dugg bàyyeekoo ci mbëbës yu bari yu nga xamee ne rek ñoo nekk ci biir quartier yi. fii ci diwaanu Louga. boo demee Touba Seras wala nga dem ginnaaw miiru Baye Jiri Mbay mi wala nga dem Kamb ya ci ngay xam ni Louga am na ay mbëbës yu bëri ay jigéen yu brave yu extraordinaire ñoo fa nekk yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñoom ñooy nekk euh, di occupé wu sur la ramassage bu charrette ñëwee wala oto mbalit yi ñëw ñoom ñooy for dajale takk ko comme takk yi ngeen di gis buñ demee peser ko waxtaan ak ñoom jënd ko. plastique bi nag bu ñu ko trier ba noppi am na ci lu nga xamee ni si dañ koy wal ci machine bi li ci des ñu stocké ko di xaar ay clients yu koy jënd. selon les matières dañ koy classifier yi dem copeaux wala dem copeaux yi war a def HD ñu war a def HD parce que ñi koy soxla euh, bokkuñu dañoo bëri selon laa demande ñoom ñoo ñuy wax nañu bëgg nañ qualité telle bu ñu waxee qualité telle ñun ñu liggéey en fonction de ça. am na client yoo xam ne aussi dañ lay wax walal ma une tonne chaise wala walal ma une tonne copeaux wala walal ma dix tonnes nangam yooyu aussi dañ koy noonu selon la demande daal ñun noonu la ñuy liggéeyee quoi. projet bi nag bi ñu ko taxawaleeg léegi ay at ngi ni ay doomi Louga di ci daan seen doole ci wàllu collecte ak transformation déchets plastique bi nga xamee ni si dañ cee lëkkaloog entreprise HGB di ab banqaas ci association handicap from EDIC. emploi direct yi nga xamante ni projet bi créé na ko au moins il y a plus de cinq handicapés ak trois valides yoo xamante ni euh, c'est des emplois directs mais il y a plus de cinquante personnes yoo xamante ni ay la majorité c'est des femmes yoo xamante ni tey ñi ngi emplois indirects. yoo xam ne tey ñuy gis seen bopp bu baax a baax a baax ci kii muy ay personnes handicapées muy ay valide yoo xamante ni tey bu ñu soxlaa plastique bi dañuy dem ci euh, ñëw ñu ñu ñu mën ko li tax mu am njariñ mooy léegi boo xoolee sa environnement bi xam ne léegi déchet plastique daanaka ci quartier bi ñu nekk ci zone d' intervention bi bëreetut ndax nit ñaa ngi koy ramasser léegi di ko indi ci centre bi ah ñu koy transformer en granulé boo demee ci machine ba bi ñu am bi bi association bi am gis na ne mbalit mi nu mu bëree bëri bëri mën nañ koo mën nañ koo transformer très rapidement moo tax transformation bi mooy solution bi te loolu ci ñoom nañ ci la nekk di ci yëngu boobu ak léegi ñu leen ciy félicité au nom de toute l'équipe municipale euh, le maire monsieur le maire Moustapha Diop xam na projet bi yëg na ko te vraiment mi ngi leen di encouragé ci liggéey boobu ak te di leen accompagné. Ibrahima Sène di njiital association handicap forme édique moom di woo autorité yi ngir ñu ñëw gën leen a jàppale ba projet bu ni mel ñu gën koo yaatal ci mbooleem quartier Louga yi. bëgg nañu le monde le euh, président de la République le ministère mais le ministre Moustapha Diop. xam ce qu'on est en train de faire parce que moom mooy ministre de euh, l'industrie et de petite et moyenne industrie mais dañu bëgg mu ñëw benn gis li ñuy def deuxièmement mu accompagner ñu ba tey projet bi ñu mën ko def dans les quatorze quartiers de Louga mu accompagne ci ci sur le plan euh, fonds de roulement le plan matériel sur le plan équipement ba tey projet bi vraiment mën a employer des jeunes soit handicapés non handicapés mais en tout cas ñu jouer suñu participation euh, suñu partition ci développement environnemental bu Louga ginnaaw valorisation de ces places bi entreprise handicap global business ak i ndawam dañuy yëngu ci ramassage des ordures ménagères entretien ak nettoyage yenn service yi nga xamee ni si ñoom la ñu lëkkalool fii ci diwaanu Louga. ay aywa na Fall ñu jaajëfal ko bu baax Chérif yaa ngi koy wax sànq muy ay activités ñu war a encourager euh, euh, lu jëm déjà ci déchet plastique c'est un danger pour l'environnement donc boo ko récupérer c'est un bien c'est c'est bien déjà mais nga fexe ba mu amal njëriñ ay ñeneen ñu ci xëy rawatina ñu amee laago c'est à applaudir et à bien sûr l'initiative bu jar a parce que solo si mu am déjà ci environnement baax na boo xoolee li ma gis nii maanaam ñoom bu mbalit ko doon waxee te ñii yëngatu di ko wax mooy mu am tri boo trier ñu xool li nga xamante ni plastique bi la mën mënoon koo bañ a sànni parce que boo ko sànnee baaxul ci environnement bi mais nañ koy transformer euh, ñu ngi koy wax sànq même pavage yu ci bëri à travers justement ay kii plastique la te donc euh, organisation bi tamit ñu wax la donc ñi war nañoo soxla ndimbalu ministère bi nekk wàllu environnement parce que ñi déjà mën na nekk Euh, modèle buñ mën a sax euh, développé ci Sénégal yëpp dans toutes les régions parce que fii diwaan boo fi dugg yi fa ngay gis ay barigo yoo xamante ni kawut luy yàqu te kawut yi mën na am soxal wala mu am beneen njëriñ. c'est ça donc muy lu am solo loo xam ne c'est initiative à saluer malheureusement il est 7h33 mënuñu si gën a yaatal mais de toutes les façons ñu ngi am yaakaar euh, seen gunge dañuy dem léegi ci li ci yéen kaay yi ànd ci